mooy Tarkida Social Foundation ñoo soutenir ki nga xamante ni moom mooy le phénomène l'ambassadeur de la jeunesse l'homme social l'homme incontournable muy Siteu dañuy wax souvent que derrière chaque grand homme il y une femme une grande dame derrière Mais man je dis non. À côté de chaque homme, il y une grande dame. Parce que jigéen warul nekk ci ginnaaw ci côté bi war a nekk saa yu gesoo nga gis ko muy femme sa femme. et di nuyu aussi li nga xamante ni moom mooy division one bi nekk aux parce que fondation bi dañ ko créé aux états mais domaine d'intervention fii la au Sénégal am na benn groupe benn équipe bu nga xamante ni ñu ngi nekk aux États-Unis am na ay américains comme des sénégalais diverses nationalités yi nga xam ñu ngi ci et ñu ngi remercier bu baax et di remercier aussi tamit toute l'équipe de Tarkinda Social Foundation bi ne fii ci Sénégal les gars ñu ngi di nuyu di leen ziare bu baax di nuyu aussi tamit. képp koo xam te suñu partenaire la jëm ci ministère de la justice jëm ci Doro et son équipe et l'ensemble des partenaires yi nga xam ne ñu ngi fii présent et di wax ni Tarkinda Social Foundation dafa am ay objectif am ay but am ay lutte am ay challenge yoo xamante ni bëgg nañ ko relever fii ci Sénégal te loolu lépp lenn rek moo ñu ci mën a dimbali mooy votre soutien vous la population sénégalaise. On ne parle plus de banlieue, on parle de bon lieu. C'est un lieu boo xamante ni est bon. et di wax ni suñuy domaine d'intervention dafa large ñu wax ni éducation Tarkinda Social Foundation da ciy intervenir li nga xamante ni moom mooy éducation li nga xamante ni moom mooy santé li nga xamante ni moom mooy le développement économique et solidaire li nga xamante ni moom mooy le sport li nga xamante ni moom mooy le social surtout ku xam ki nga xamante ni moom mooy suñu founder ki nga xamante ni moom mooy suñu mentor de Siteu xamee ko ci social et je voulais que ñu applaudir ko tàcc ko bu baax a baax a baax a baax et ñu ngi nuyu le directeur du Grand Théâtre un homme, un homme social, un homme vraiment multidimensionnel parce que daanaka moom ci fondation bi la bokk donc père di ngi lay nuyu bu baax di la siyaare tàccu leen ñu ko moo ñu jox opportunité bi ñu mën ci sévir et di wax ni Tarkina Social Foundation ku ci nekk mu nga gis sa bopp parce que lenn rek moom mooy définir li nga xam moom mooy suñu objectif moom mooy comment faire pour apporter un soutien à notre communauté je parce que loolu loolu large la loo xamante ni ci côté yëpp nag dañ koy intervenir et di wax ni la jeunesse dañuy wax ni souvent wax ma kan mooy sa ndaw ma wax la suba ban peuple ngay am bu ndaw bi baaxee tey suba l'avenir du Sénégal sera garanti et je pense que Siteu loolu mooy objectif am et ñu ngi leen di woo ci suñuy combat wax ñu combat de lutte bien sûr combat de lutte laay wax mais waxuma lutte avec frappe lutte pour les difficultés yi nga xam ne moo ne ci dëkk bi lutte pour les choses yi nga xamante ni vraiment la violence bi nga xam xamante ni moo nekk ci Sénégal te Siteu am na ci solution bi vous-même xam ngeen ci dara te moom xam na ci dara te dëkk bi xam nañ ci dara ñi ngi wax ni chaque jour que Dieu fait ñi ngi xool naka lañuy def pour développer le Sénégal daara yi Siteu dafay intervenir récemment avant Korité bi dem na fi nga xamante ni moom mooy Mbourkat am na benn daara ba fa nekk Siteu contribuer na li nga xamante ni moom mooy son soutien ci daara boobu te promettre na ni dina defar daara boobu te xam naa ni su ko waxee dina ko def parce que daara boobu amul ndox imagine toi Thiès ak Sénégal ak Dakar presque quatre vingt kilomètres à soixante kilomètres mu am dëkk boo xamante ni amul ndox loolu pour man ñun ñëpp am na ci responsabilité te on appelle à toutes les gens yi nga xamante ni ay ay porteurs de voix lañ non seulement. mais ay yi nga xam ne ñu ngi soutenir ces telles initiatives yu mel nii ñu ngi leen di woo ci combat bi nga xam moom la ñu mënee école yi aussi tamit dañ ko réfectionner parce que loolu bokk na suñu objectif école yi réfectionner Sénégal parce que xam nañ bu baax naka dañ koy defee te mën nañu ko donc di wax ni l'intérêt général moo ñu dajale fii et Siteu il va réussir cette challenge ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ziare bu baax di leen wax passez une excellente fête jaa ngeen jëf je tiens tout d'abord à remercier la Tarkida Social Foundation pour ce travail que vous êtes en train dans la banlieue mais surtout sur tout le territoire du Sénégal. Tarkida Social Foundation Chacun peut éradiquer un paradigme à son échelle. Chacun peut développer le Sénégal à son échelle. Vous avez en face de vous une jeunesse très engagée, une jeunesse consciente, une jeunesse éveillée, mais surtout une jeunesse avec de vrais rêves et de réels potentiels. Nous serons là Nous serons avec la Tarkida Social Foundation. Le groupe School Tour vous ouvre les portes. jusque nous en sommes à notre première édition, dont la cérémonie de clôture sera ce 24 à la grande salle de la place du souvenir. Vous êtes invités ici et tous les membres de la Tarkida Social Foundation. Il est venu pour une jeunesse bien formée et sur le monde de magnifier nos valeurs, de vulgariser notre savoir, bref, d'arracher la parole qui nous avait été arrachée et de parler aujourd'hui de nous sans complexe et avec fierté. Maola Cheikh Ibrahim Niass dafa tàmm wax aucun peuple ne peut se développer sans sa jeunesse mais pas n'importe quelle jeunesse. Tout à l'heure vous avez parlé de banlieue au lieu de banlieue loolu dañ ko war dañu war a changer mentalité nit yi am ci banlieue bi banlieue amul ko bon il y a partout des brebis galeuses mais dañoo war a changer par cette journée mémorable je nous souhaite courage et abnégation et la réussite sur tous les plans de la Tarkida Social Foundation excellente fin de journée à vous je vous remercie